naan que moom du awma fa place ci gàttal daal su ko mënee résumé loolu nag ah engagement na la ndax nag wax dëgg yàlla xam nga boo nekk mënoo nekk ci réewum démocratie naan diw lu tax ngay wax lii am na droit wax lu ko neex ndax démocratie la en démocratie ku nekk danga koy nangul mu wax la mu bëgg a wax nga d'accord caak nga bañ ca d'accord waaye xalaatu boppam moom la wax moom Mamadou Lamine Diallo teg ci man su ma nekkee citoyen sénégalaise juddoo Sénégal yaroo Sénégal màggee Sénégal am carte d'identité sénégalaise passeport sénégalais su ma demee yeneen réew li ma am am tur dañu naan la chanteuse sénégalaise moom mu jël jugé ni man awma palaasu taxaw ci dialogue national bu ñu wone pour la nation ñu woote ko pour la nation pour les sénégalais pour toutes les forces vives de la nation moom am na droit bañ caa ñëw am na droit am opinion am na droit wax lu ko neex nangul naa ko ko waaye nama ma bàyyi wax dëgg yàlla ta xam ne manub citoyen la am naa droit taxaw fu ma neex dem fu ma neex bokk ci lu ma neex rawatina bañ ma ca woowee ndax ñëwuma ca comme un cheveu dans la soupe dañ maa jox carte ma considéré ne man citoyen sénégalais laa nama ma ko waxee sénégalaise plutôt ma ñëw teg ci man bu ma dee jéggi sama réew dem ba yeneeni réew nee naa leen champ de Mali ak champ de lignage de tous les pays Afrique te mu ren bi mooy paix sécurité cohésion sociale waaw bu ma ñëwee ñu woote man sama réew woote ab dialogue moo xam ni paix et cohésion la man ma ne du ma ca teew bu ma ca waxul sax war naa ca teew ndax citoyen bu nga doon ne serait pour déglu xam fii lan lañ fiy wax ndax li wax ci réew mi kat ñor na ma te war naa caa wax buñ ma ca rawatina nag léegi bañ ma ca interpellé ma di ca wax te man ba ma fa waxee la ma fa wax muy ci français mooy ci wolof ñëpp dégg nañ ko te defe naa ni képp kuy nit ki nit laa wax nag waxuma ko leneen lu dul nit mm-hmm. te ci réew mi saluer nga ko ndax société malheureusement ñaar ñoo fa nekk ñiy dégg ak ñi dul dégg ñiy ànd ak ñi dul ànd te defe naa ni la grande majorité saluer nañ ko ndax waxi citoyen bu responsable laa fa wax waxi citoyen bu xam réewam waxi citoyen bu bëgg réewam waxi citoyen boo xamante ni engagement am ci réewam mosula am faay loolu mooy benn bi beneen bi it dañu war a arrêté di dénigrer artistes yi parce que moom su nee man du wax ak man xëy na dafa defi ne rek man artiste laa que man awma foofu place mais foofu artistes yi dañ fa am place mhm. mais artistes yi ñoom ñooy apaiser su dëkk bi di tàngee bay nar a tàkk ñoo ñëw def musique pour apaiser les esprits il faut que les leaders apprennent à utiliser les artistes pour comme des vecteurs de communication dañu war di utiliser artistes yi comme ay vecteurs yu communiquer kon faut pas ñu dénigrer artistes yi artistes yi ay amuseurs publics man de en tout cas duma amuseur public ndax amuseur public du nekk ambassadrice bonne volonté au minimum cinq institutions ou presque onusiennes nga xam ne benn bu ci nekk nag dinañ def enquête de moralité un xool yow mii ndax sa moralité bi mën na taxaloog suñu image wala déet ndax nekkoo kuy def lu dëng doo dem bërki dem boo njaay japon gee ak les japonais comment ils sont rigoureux nga signé fa ñu ñu di la autoriser di la di la financer ngay tabax ko léegi nag dañu war a respecter artistes yi xam ne mënuñu leen génne ci société bi ci artiste bu ko xam nag te xam boppam te respecter boppam parce qu'il faut se respecter et se faire respecter il faut arrêter de vouloir dénigrer les gens maintenant nag moom am na liberté def lu ko neex wax lu ko neex xalaat xalaat lu ko neex mais moi je n'accepterai pas de travailler pendant plus de trente ans de métier et de faire de la rigueur et de l'exigence mon credo et mon leitmotiv nit ku jóge fële ma kan la ñëw bëgg a dénigrer lenn ci sama jëm wala ci sama kàddu ça je ne le ferai pas et je l'accepterai pas maintenant nag vous m'avez posé la question sinon moi